tey ñu ñëwaat rek ànd ak ñi nga xamante ni waa mooy waa Ngalam bi ñëwoon nag taxawaat fi ki nga xamante ni mooy pablaay macha allah ñëw nag taxawaay taxawaayu ANPEL muy association boo xam ne association bu rëy la association boo xam ne association bu dynamique la di liggéey ci élevage liggéey bu mucc ayib tey nag ñu génn fii ki Saldek bokk ci juróomi association yi nga xamante ni ñoo boole seen doolee def salon bu rëy rëy bi Pablay ginnaaw mu la nuyoo bu baax di la ziaraat bu baax a baax tey par rapport ak Saldek xalaat bi ak juróomi association yi àndandoo def lu mel nii nan nga ko jàngatee. waaw alaaji di ko rafetlu rek. Mm-hmm. waaw di ko rafetlu baax a baax a baax a baax. parce que doon na loo nga xamante ne nii yomb la gis. Mm-hmm. waaw da nga daan gis ñenn ñu koy kii rek. Mm-hmm. mais bi c'est-à-dire que xam nga lépp lu ñu naan mbooloo. te lii mbooloo mooy doole. te dañ ku nekk dañ si gis sa bopp daal. waaw man nag di si gërëm waa ANPEL bi nga xamante ne nii si laa ñëwee. ñu doon ñoo xamante ma am ñoom laa koy gërëmee ñoom laa koy sante quoi ñu taxaw taxawaay bu mucc ayib waaw di ma gunge nag partout di ma jàppale te loolu moo baax si éleveur bu ndaw quoi. waaw comme ni ñu waxee. <laughs> Pape Laye da ngay naxaate waaye nekkatoo éleveur bu ndaw comme ni ko waxee ni Andpel di doxee dañuy jàppalante bu baax a baax yow nag Andpel suñu la seetaanul yow it seetaanoo Andpel ndaxte acteur nga ci man ci groupe groupe boobu fa laa bokk xam naa nan la ñuy doxee gis tamit liggéey bu rafet bi nga xam te ne yaa ngi ko fay liggéey ci engagement te élevage noonu la kenn ku nekk da ngay def sa tuus mais li nga mën a si élevage bi yaa ngi kii def sa tuus bu baax a baax tey Pape Laye à travers loolu nga bugg ñu xam rek kañ nga tàmbale ci li xam te ni mooy sa càmm yow waaw alaaji sàmm na ma boo ko gisee si laa dug mhm. sama papa mën a yar ay xar mhm. bi paa bi génne àdduna yàlla na ko yàlla jégal yërëm ko suma yaay jël affaire yi mhm. waaw macha allah moom it bi mu génne àdduna ma jël ko si ñoom te avant boobu bon man maa nekkoon waaw di bi ma demee nag ba ci biir la ma ibraahima Diouf. Mhm. waaw dugal àndpel. waaw génnaloo ma sama xar yi ma yoroon. Uh-huh. dugal ma si laadum yi ma maa ngi si sant yàlla quoi. waaw moom moo ko waral daal. macha allah loolu nekk li nga xamante ni lu am solo la tey ñu ñaanal si ñaari waajur yooyu suñ borom xaral leen àjjana firdawsi macha allah loolu nekk lu am solo tey comme ni nga ko waxee nga ñëwaat paa bi doon yar mère bi doon yar nga ñëwaat topp ki tànk yooyu ba tey di yar. Mhm. tey par rapport ak ñoom xar yi doon yar ak xarul laadum ban différence gis ne la am. waaw alaaji laadum dafa xew mais moment boobu xar yooyu moo xewoon ay talaa biir la daan doon xar yoo xamante ni ñoom daaw ñu woon dem ay foire daaw ñu woon jaay daaw ñu woon def dara mais macha allah ñu daan faj seen soxla bu tabaski jotee dañ ciy tabaski bu ñu amee xew dañ ciy ngénte lu ñu def dañ ko def waaw te xari daan bari te daawul am ay complication waaw élevage laadum soo ko déggee dafa bari coono macha allah élevage wa laadum tey élevage ordinaire ak xar yooyu ay asawat ak yooyu da nga daan sa jàmm nekk en l'aise mm-hmm. mais tey élevage laadum bien vrai que ne passion bi mooy tax nga mën see am ndëgër laay parce que dafa metti bari na coow faa nga topp engouement bi des fois sax ñu naan lobby la su nee lobby la parce que dañoo ne rëbb sa coow la tey soo gisee ñu bari naan élevage laadum ñi naan lobby la non du lobby damaa gëm ne soo bëggee dara mhm. da nga ciy dem comme ñi ci nekk ni ñu ciy demee pour nga mën a bokk parce que même si dee lobby la fexeel bokk ci lobby bi nan nga war deful bokk ci lobby xoolal ñoom fa ñu ne nga ànd ak ci loolu des fois damay dégg lu bari loolu lan nga mën a wax ci gars yi waaw alaaji man loolu euh, li ma si mën a wax bari na parce que dama ko daan wax mhm. su ma daan gis ñu jaay xar bu cher wala ñu naan dama naan lii ay caaxaan la quoi mhm. mais comme que ñun maa ngi jour bi ñu dem di def visite mhm. am na xar yoo xam te nii man prix bi si gars yi fay si dama ko xeeboon dama ko xeeboon parce que loo si gën dugg ngay soog a xam li si biir lépp lépp lépp daal mooy lan quoi parce que da ngay dem seeraas alaaji ñu jaay la xar bu ñu defar ba pare nga calculé ko mu doon 15 kilos mais nga rey raadum xoolal mu yóbbu ay 30 quelque wala 40 ba 50 tey tey tey tey nga xam ni kon affaire du benn te balaa nga xam nga dem mu dem ba si cin la bu demee ba si cin la ah, non cin bokkul safin waa ah, kay yéen a ko déggandoo Pape Laye yàpp du morom benn yap beneen affaire la si catégorie yëpp nag tey ñi ko ñam xam na ne ah, laadum du morom ordinaire ñam ko yombul ndax ndax xaar yu ay million xam loolu neexut a ñam éleveurs yi ñoo ko ñam classe ñoom Pape Laye ne ni des am bu xaw a kii rek ñu jël xam nga dugal ci frigo nekk tey lu am solo comme ni nga ko waxee soo ci soog a nekk doo gëm ne sa xar mën na jar million soo ci soog a nekk mais soo ci duggee ba ci biir a biir soo yoroon cent millions da def ci xar da xam ne xar bi lii jar na ko te élevage tamit liggéey la par rapport ak ñi nga xam ne jàpp ñu ne élevage liggéey la te élevage ñu bari ñu ciy faj ay buumu gàcce waaw alaaji loolu tamit dama koy rafetlu bu baax a baax a baax parce que da koy gis xam nga loo xamante ni buñ la koy wax ba nga dem ba teg sa bët non loolu mënutoo koy weddi te dafa am yow sa bopp nga xamante ni tey am na famille yoo xam te nii si foire bi wala ay mbaal yoo xam te ni tey bu ko seen borom naroon a jaay nangoo jaay jaral na ma lu ne foofu laa toll si élevage tey jii waaw te tey ñaanu ma yàlla areeraat waaw da may gën a continuer rek incha allah rabbi waaw macha allah Pape Lay sañ-sañ boobu ak gën a continuer mooy waral lépp loolu xam ne bëgg nga càmm gi nga am ko parce que élevage soo ci nekkee mënoo ragal parce que il faut nga def dara pour mën a am dara yaakaar naa ne liggéey bu mu mënti doon si àdduna da def dara pour mën a am dara am na xam ne dañoo ragal ci càmm gi ñii ne duñ jëndee xaru 500000 duñ jëndee xaru 1 million xar yi am na toll foo xam ne nii di nga fekk papalaay yor xar boo xamante nii pour nga jël ko si xëy na ay millions yu bari mooy tax mu fàtte xar mi mais su dul loolu du nii nii rek am na xar yoo xam te ni tey pour ma génne ko problème la si man du yomb ko du yomb te lépp xalaatuma ko woon mais bi ma demee ba dugg ba si biir uh-huh. waaw non xam naa ne moom li ñu naan rek ci cin bokkul tafin non non moom la waaw moom la parce que élevage tamit naa la xam benn affaire uh-huh. xari ay muumi la ñu nga xam tey nii bu fekkente ni yàkkamte woo dara uh-huh. nga dugg si rek bëgg ko noo di nga si am loo bëgg waaw mais nag bu fekkee nga ko bëgg a def tey tey tey jooni jooni non doo waaw loolu waaw doo dem. kon mooy passion bi da ngay xaar. ba la ciy fekk fekk la ci loolu nekk lu am solo na ngeen ko bàyyi xel donte nag élevage mën na lu ne waaye nag doo dugg tey suba nga bëgg see am lépp lu ne gàññ da ngay dugg tey di ànd ak gars yi di def ndànk-ndànk ba suñu borom may la li nga xam te ni soxla nga ko ci càmm gi te élevage mën na lu ne may na fi nit RPS 4 may na fi nit 4 4 ay terrain lu dul jeex xar yi nga xam te ni mooy suñu laalu mi mën nañ ko pablaay macha allah mais jafe-jafe ban la éleveur yi di am par rapport ak xont beeg xam nga waaw loolu loolu loolu moom mooy problème bi nag loolu rek mooy problème bi parce que tey ji bu fekkee da ngaa bëgg a yor loolu lii lu mel ni nii nii yaa ngi ko yor lii rek dèjà gétt la te am nga yeneen yoo bàyyi kër ga waaw te xar yi waruñoo xiif waruñoo mar xam nga waruñoo feebar te loolu lépp dafa ànd ak xar yi kon loolu yëpp ay jafe-jafe la war nañu mën a jàppale xam ni tey ji lii nii bu si ñëpp duggoon non dootuñu dem di jéggaani jënd ay xar parce que ñëpp nañ rey laa dum tey ji bu dee dama ko am sa kër amu kenn am ko mais xëy day tasaaroo day tasaaroo buñu jàpp CSR bi nañ ci dugg te am na ay yomb yomb am na ñoo xam ne tey ji mën nañu jël xar may la pour nga góorgóorlu si léegi nag bu ñëpp amee xar mhm. mais xar waruñu ko jëndaani te da ngay rey benn xar def sa frigo di noos ay noos noos ay noos ñaari fan ñetti fan bokkul sax kin bokkul safin tey xar bu am 6 mois ak laadum soo ko reyee tabaski dañ ki tabaski ba mu des lekk ci un mois ba ñaari weer ba ba ba un an parce que xar yi tamit noonu la toll macha allah ñu xaru ordinaire bu am 6 mois tay soko ko ak xaru ordinaire ak xaru laadum bu am 2 mois lañuy tolo kon ko ma mbaam ëpp ko kon kin bokul safine comme ñuko pap lay waxé waxee macha allah na ngeen ko baye xel bu baaxa baax ngeen jëm am sañ-sañ ba pare lan lañuy xaar ci état mu jappal ñu suñu élevage parce que am nañ ay manquement yo xamanteni ci jëm ñoo yombalal ngooñ bi ripaas bi extra extra yo dañ ko soxla bu baaxa baax xol la yoon la éleveur yi wara jaar pour loolu mëna a yomb. alaaji déjà li rek wane nako xol foar bi ñaata mi won ci def. Mhm. te ay jeunes fi nekk ay xale yu ndaw di daan seen doole mm-hmm. te ku si nekk lu mu bon bon yor nga fukki xar léegi nag yooyu nga war kaa dundal mm-hmm. mais loolu bu ñu la jàppalewul mm-hmm. mais attention dañuy arrière te bu ñu arrière du baax de parce que ay ay jeunes yi jeunes ñooy liggéey si laa dung waaw ñi nga xamante ne ñooy sang xar yi yooyu yëpp mais imaginez tey jii bu saako euh, ripaas de bay toll ak saako loolu état war naa kaa xoolaat xoolal saako ngooñ bi nga nga xam te ne ay saako samay jamono tey ji bu demee ba saako di yar ay tamit dix mille la kenn xamul waaw mais loolu nag dëkk bi amul est am na yoon kon waaw mais nañ xoolaat rek ah, kon nañ xoolaat état tamit na jàppale nga xam te ne mooy élevage laadum bi comme ni ko Pape Laye waxee jeunes yi siy yëngu li ciy gagné dafa bari foire bi ñaat nit ñoo fi nekk di fa am seen wërsëg macha allah bergerie yi boo gis jël na benn nit ba ñaar di ko fay par weer kon élevage laadum bi mu ngi ci li nga xamante ni mooy suñ suñ suñ réew mi kon yaakaar ne jot na nag état jàppale ñu ci li nga xam te ni mooy yomb yomb li nga xam te moom la xarit dundee yaakaar naa war naa mën a yomb pour ñun macha allah loolu ba Ablaye la dugg nag ci xam te mooy càmm gi dëggantaan njaay balaa ñuy tëj Ablaye yaa ngi liggéey mmh. ginnaaw ba nga xam te ni mën na wax ci xar nga juddu mmh. tey ku xool sa xaru tey ak xaru démb li nga xam ne Ablaye mi ngi dox ay tànk jeego mmh. ñëw naa sa kër ñëwaat fa xam naa ne avancement bu bari bari a dalay jara jaral jaay sa keur wala nga jaay sa auto waaw lo am rek xarit mo la koy jaral té comme comme mbolo la muy doon lo xam jogonté la di liggéey hmm. da ngay bëgg chaque jour ñu lay nga nek ci karam hmm. parce que man lima préféré moy bo gisé ma sonu ci hmm. dama bëgg képp ku ma jox xar mais yow nga gis sa bop bo ëllëgee nga rëcc la mo tax jundu won ñaar wala jundu won ñet waaw wala mo tax teel mësa duggu man lool lay doxal lool lay gis xarit mo tax par rapport ak bu démb bi mo tax chaque jour damay bëgg def jéego daal gën a avancé kon jeego yooyu yàlla na suñu borom gën a dëgëral taxawaay bi mooy jeego yi képp koo jox Cissé rek mu am ci ndam am ci réussite ba amul dara lu ci ciy regret te soo xoolee Cissé yaa fii genre famille yi ma gis fii macha allah te maal bi mën na lu ne élevage bi nag am na nu mu demee mais li ma gis fii Pape Laye am naa yaakaar ne lan nga xalaat ne su maal bi liggéeyee ba pare moom nga war a dugalaat ak famille yi bu mën a yokk liggéey bi. waaw Alaaji léegi ma comme ni mu demee noonu chaque jour damay xool rek xar mi yi muy def. ma xool xar boobu lan la mu bu dee xar boo xam te ni dafa am doole ma jëm ko utal wet mu gën a gudd wala mu am hauteur loolu laay def quoi léegi nag moo taxoon ma dugal maal bi mais macha allah xam naa ne tey ji ay doomam mën naa seen liggéey loo xam te ni ñoom ñu koy gën waaw ndax dina xam naa ni ma ko gisee ak famille yi ma koy boole xam naa ne ay doomam ñu koy gën quoi te noonu laa ko bëgg a doxalee ba amaat yeneen résultat ya waaw kon yéen a ko déggandoo kon maal bi soo ko xoolee si hauteur macha allah am na ko LCS bu doy waar doole tamit am na ko kii tey xëy na Pape Laye moo ragal mais mënoon naa dugg si ay moromam ñu natt ay macération ak poids parce que Pape Laye la muy xonte secret la mi ngi naa xont bi daa seen mais secret la xëy na yombul nag tey Pape Laye secret xont boobu des nga ñama ci éleveurs yi ndax ñu bañ a topp lu seer yi parce que man système bi ma gis am na doole te feeñ ci xar yi. loolu war nga koo ñamal éleveurs yi. non pourtant nag maa ngi leen koy wax. Mhm. chaque jour parce que tamit boo bëggee jënd lu cher. Mhm. te xar duñ ko lekk ko nga si ñamal. Mhm. tey nga jënd saako waaw xam ngeen saako cher na d' accord. mais a lekk ba suur nga ñamal ko rek. loolu du du am xar du feeñ. balaa caag nag nga jël lu cher loolu ut lu yomb. nga jaxase ko nga xamante ne day lekk ba suur saa bu jógee lekk naan ndoxam tëdd boobaa du day gën a am daal incha allah te poche bi du ko dina dina feeñ si poche bi. poche bi dina dina dina bi te te ñëw doo ñëw si kër gi xar yi du yuux dama ñëw sa kër xar yi di nelaw bay yuur Pape Laye kon ma xam ne xont bi ngay xont nekk na nga xam ne doy na waar tey Pape ñëw si présentation li nga xam te ni mooy Cissé yi Pape ki nga taxawal nii mooy kan. waaw ah, kii mooy Basia. Sey waaw Basia daal mu ngi nii. nekk kan. Basia famille séeréer la bokk. Mhm. Badara moo ko jur. Badara Abdou séeréer Abdou booy séeréer la ko jur. macha allah waaw moo nekk nii quoi. moom ci booy séeréer bi la see saf sap. Pape Gueye bi nekkoon Pape Gueye bu Kër Mbaye Fall ko joxoon. waaw gis ko mu doon xale boo xar xar moo xam mhm. am tasul daal. parce que war na war na fa ay jéego yu moo nekk nii. kon allah kii nekk na ci kër gi mais téye nga ci ay doomam yu jigéen. waaw téye naa ci ay doomam yu jigéen parce que fi mu nekk nii ay doomam. ak ay doomam nan nga jàngatee ay doomam bu góor ak jigéen moom may euh, macha allah wax dëgg yàlla li ma la wax rek moo si nekk waaw day def góor def ay seex mhm. di def ay jigéen te yi fa am yëpp presque xar bu judd rek nit ñi gën ma kaa bëgg quoi. kon loolu mooy wane ni que mu ngi liggéey quoi waaw. kon kii soo xoolee produit fini la. waaw produit parce moo waral xar su juree. wax lu élevage bëgg ko rek. kon loolu xel da fay dal. képp koo xam te ni bëgg nga siise suñ paree si émission bi na ngeen jël numéro Pablaye woo ko dina leen jox qualité xar yu amul fenn loo xam te ni piqué nag la am. tali bu bees macha allah tey nga présenté beneen. Fabel jeeg baa yi noonu. di nelaw dañuy nelaw rek xar yi li ñuy lekk baax dañu gis nga ko ku xool xar yi xam na ne macha allah kan kala yu liis na ku xool xar yi xam na ne am nañ toppatoo bu baax a baax ku xool yi xar da xam ne Pablaye sonn na ci li nga xamante ni mooy càmm gi xoolal ma xar bi si balaise macha allah Pablaye kii mooy kan. kii mooy jéegu ndar. kii jéegu ndar waaw ah, jéegu ndar te di garaaw la am nag. waaw jéegu ndar a ngi ni daal di daagu. waaw jéegu ndar moom euh, benn roq première daam moo ko mhm. boo xamante ne nii. sans mhm. moom. ci roq daam. moo ko juróon moom it waaw moo ko jur waaw ñu koy jox ñu jox ma ko comme tëng boo xam te ni amagul woon doom tëng la woon ci yow waaw tëng la woon si man am si yow ñaar porté am na si man trois porté fi mu nekk nii nga doomam bu jigéen euh, de téewuma doomam bu jigéen nag parce que ah, <laughs> moo tax maa ngi koy wër nag waaw maa ngi koy wër maa ngi wër ay doomam bu jigéen lu ma la ciy conseil fexeel ba téye doomam bu jigéen parce que fa élevage toll noonu la xar bi mel xaru lii lañ soxla xar yu am kees gu baax LCS osatiri wóor lii heure boo leen boolee maal lépp loo bëgg ci élevage daf la koy jural tey Pablaay yàlla na ko yàlla fal cat nga indil ñu keneen ñu présenté ko Pablaay xar yu doy waar la fi indi kii tëng la wala famel la Pablaay. am na benn portée nag waaw am na benn portée quoi am na benn portée doomam laa bàyyi kër ga. doom bi de fer na. Mhm. ndeysaan kii ablaay mbay la Ablaye mbay moom xam nga so gisee jigéen yéen a ma gën a xam <laughs> Ablaye mbay may ñu tuuti ñu wane xar mi bàyyi li ngay def eh, wane wane waaw soo téye rek nga yaakaar ne bu Ablaye Mbaye kii du pour yow <laughs> yaakaar leen kooku bàyyi keneen ñëw ndax ah moom loolay problème bi ñëpp nag Ablaye Mbaye mii daa war rek réglé waaw Ablaye Mbaye mii daa war a réglé géniteur bu doy waar la. Masyaallah, ngeen gis mal bi soko mal xoolee mal ne maal la ci osatir ci LCS ci doole Masyaallah, gis na fi teung bu ñuul bu doy war mom tamit def ay cornu oh masyaallah, Madi Madi jëlal ma ki jël bu amul fenn Madi ndax ki doy na waar. kan la pablay ah, waaw ki nak mom moy Aresa. ki domu Printemps la Printemps station lon la waaw. moo jur moo jur moo jur yaayam. moo jur maamam. waaw c'est ça moo jur maamam. ñu joxoon ma ko muy printemps sama benn booy bu ma dëkkaloon. sama xarit sama booy moo ko joxoon. maam am ko si nii mu nii mooy Araysa. macha allah Araysa Araysa Araysa. kon nag turam yee garaaw. may ñu keneen tey ñu daal koy càmbar à travers fi nga xam ne nii mooy Ngalam TV fi nga xam ne lépp di leeree. fi nga xamante ni képp comme te ni bëgg nga élevage laadum bëgg cee xam dara tey soo cliquer fi nga xamante ni mooy Ngalam TV dina la won yoon bi wala nan la ak naka la balaa ngay dugg wala soo duggee ba pare wala nga bëgg xar rek macha allah xoolal ma lii kii du ay caaxaan ah Pape Laye Pape Laye kii kan la. maam Yacine Ngop. waaw waaw maam Yacine ñu nii de. maa la ko wax muy nii <laughs> kii nag moom. Uh-huh. grossiste moo jur yaayam direct. waaw waaw. macha benn waaye tamit moo ko joxoon. waaw moo ko joxoon dama sélectionné woon ay femelle. boole woon ko si. mu ngi nii moom it bi mu nekk tëgg bu ndaw laa ko indi. waaw mu ngi nii. kii amagul porté sax fi nekk nii. wallaay amagul porté. kii may seen nii amagul porté yéen a ko gis ci yoolu ak laaj macha allah heure bu day waar Pape kii ragal naa ne soo dëgalul ndànk ah soo amee porté éleveur dinañ ko nangu ci yow. xar bi yàlla ko yàlla fal cal pablaay Pablaye kii téye ko bu dëgër li yi di wër moo nekk ci moom macha allah instant yi ni croisé na. waaw croisé na waaw tëbu na waaw maa laa ko booleel. Ah, waaw maa ngi rang doomam bu góor wala bu jigéen mook maal bi kan moo pablaay te léegi noonu tey di ngeen xoolee xam ne macha allah exposition bi nag waaju ko waaju ko nga yoo xam ne éleveur daa war a pare saa su ne Pablaye ku xool xam ne su waajoon exposition bi di ngeen gis lu yow ñëwal la ngay bañ a feeñ kaay kura tey kura mata Pape Laye daa garaaw nga tuddee kan kura mata kura mi yaa ko judd nga koo jënd non maa ko judd la moom mu gis wet waaw ni kura mhm. mi yaa ko judd la mu doon sama benn yaay mu kër ga mhm. muy taawam moo taxoon nag ma préféré ko mu daal di ñëw rek nekk waaw mu ngi soog am doom waaw moom la àndal nii moo yor doom bi nii quoi waaw macha allah ah. courant yi nii laa waaw ñoo def jigéen rek ki mooy premier porté waaw ah macha allah xali ala doome nen soo xoolee kuréel mi ah. ndax lam fi jur ah day na waar yàlla ko yàlla fal cat waaw waaw kooku taxaw ñu xool ko xam naa à travers ngarab damay ragal gars yi wala téléphone nag wasa ñaamu xar yi nga daal di fal laal daal di jeexal kii mooy doomu kuréel mati macha allah moom it mu nuru yaay ji ah ba pare nag dàq yaay gi nag te mooy dàq yaay ji waaw kon soo xoolee moom it doomu maal bi la kon mooy taawu kuréel macha allah Pape laay ñëwal nii tuuti ñu ñu ñu daal di war a ramasser teg li nga xamante ni mooy waxtaan bi par rapport ak Ngalam TV par rapport ak foire bu mag bi nga xamante ni tey ñëw nga fi exposé fi loo xamante ni tey gars yi seetaan di leen jugé te dina xam ne macha allah qualité nga fi indi Pape laay tey lan ngay wax ki ni ñoo lay seetaan ak ak waaw alaaji di gërëm axlu élevage ñëpp nag waaw di la gërëm yow parce que yow tamit euh, sama conseiller nga mhm. waaw si élevage gars yi di la sagoo bu baax a baax a baax mhm. alaaji di gërëm waa Andepel yëpp mhm. tey lépp lu mu am si élevage wala lu ma si mën rek waa Andepel la même tey jii foire bi ma ñu ni préparé woon mais à cause de Andepel moo tax ma ñëw waaw may remercier sama bii mooy sa première sortie sama première sortie mu ngi nii tey lan la la jàngal tey sa première sortie ci foire nga génn alaaji dama ragaloon foire quoi man foire pour man damay ñëw reset uh-huh. parce que damaa xewoon samay xar mais macha allah bi ma ñëwee foire xam naa ne maa ngi liggéey waaw xam naa am na ñoo xam ñoo mën am na ñoo xam ne maa leen mën jeex na kon jeex na foire loolu tax mu am njëriñ dem ci foire soo demul sa foire da ngay ragal naan gaa yee ma man est-ce que est-ce que ba nga ñëwee xam nga ne bokk nga ci gaa yi ba nga ñëwee xam nga ne Pape Laye mënuñu lim fii si ay éleveurs yoo xam te ne yoon nañ fi ay qualité du la ci génne mm. kon foire importance am loolu la nat sa bopp ci biir foire dafa gën a wóor nat sa bopp sa biir kër kon xam naa ne à travers beneen foire dina fekk Pablay pare ko te su su ñëwee di nga xam ne Pablay ñëw na ndax amatu dara lu muy ragal kon Pablay ñun la woon ak Ngalam TV mm-hmm. doon waxtaan ak yow ci li xam te ni mooy sa élevage nga joxe sa numéro téléphone joxe li nga xam te ni mooy date bi pour képp commune soxla na Pablay mën la woo ci numéro boobu waaw alaaji di encore di gërëm sama ñoo may jàppale si xaalis su ma fa waaw 77 120 00 18. 00 18 waaw suma kii di la remercier di waa Ngalam TV. kontaan si émission bi. Uh-huh. waaw di bég si yéen ñëpp waaw. la woon ñu ngi sant di sant waa këram ñi nga xam te ne ñoo parce que fii képp koo fi gis muy sa waa kër suñu si jàppee war nga sant parce que nekk ak xar dafa métti te ñun dañuy xëy liggéey am ñun bàyyi si kër gi kon Pape laa ñu ngi lay si nga xam mooy seen waa kër yi nga ci élevage bi xam ne looloo waral ñu ñëpp seen teewaay bi ñu bokk fa nag bu baax a baax di jàpp ci liggéey bi à travers fi nga xam ne ni mooy Ngalam TV di leen wax kon ba beneen yoon incha allah ci beneen émission képp koo xam ne soxla nga Pablaye numéro boobu mu leen jox su ngeen ko ci woowee rek da ngeen koy jot Pablaye amal jàmm tawféex ak tasiir <laughs>